waaw plateforme bi liñ ciy xaar mooy li nga xam ne moom la président de la république son excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye am yéene euh, def ndax umpale wuñ ni euh, Sénégal li ñu tuddee le 28 mai dafa nekk lu ñu tuddee journée de dialogue nationale moom mu ñëw fas yéene wéyal loolu waaye année bi mu ne dana indi thème boo xamante ni lu soxal askanu Sénégal la lu ko soxal moom ndax keroog ba ñu ko falee discours ya mu amal ba ci veille bi nga xam ni moo di 4 avril bokk na ci chantier prioritaire am mooy fexe ba ñi nga yoon sénégalais bi nga xam day jëfandikoo yoon xelam dal xolam sedd ci jëflinam ak yoon loolu moo indi mu tànn thème bi nga xam ne mooy réforme ak modernisation de la justice suñ ko dee wax moo di dajale gi mu leen war a dajale ndax mardi bi nga xam ne lañuy amal jotaay boobu acteurs yi nga xam ne ñoo sekk justice te buñ dee wax acteur ne wax justiciable ñoom ñëpp dinañ daje ca sikkat joxe seen xalaat waaye moom mu ne am na koo xamante ni du mën a teew te donte ni am na gis-gisam ci ni yoon doxee kooku nañ ko war a mën a may pour mu wax xalaatam wax gis-gisam mun ne nañ ko xalaatal jumtuwaay boo xamante ni loolu dana am ci taxawaayu Euh, présidence de la république ak ñi nga xam ne ñoom la àndal di liggéey ci bis bi euh, notamment euh, le ministère de la communication de télécommunications et du numérique ñoom ñu xalaat jumtukaay yi bi nga xam ni dina mën a may citoyen bi foo mën a nekk ci maa xam wàllum nasaraan la walla wolof nga jël sa xalaat ak sa gis-gis ci laaj yi nga xam ne boo duggee ci jumtukaay bi danañ la ko laaj nga war a mën a joxe sa xalaat te buñ ko joxee itam ci ginnaaw dina am ñoo xamante ni seen liggéey mooy di taataan loolu saytu ko cambar ko suñu paree jël lépp jébbal ko ñi nga xam ne ñoo di autorités yi pour que liñ ci war a def ñu jël ko boole ko ci xalaat yi nga xam ne mooy tukkee ca lay am ca jam ñaajo mardi bii di ñëw ñu def ko muy benn te objectif bi di lan lii nii suñ ko doxalee dina fexe ba yoon nekk fi ngir askan wi te askan wi dana jub yoon te askan wi ak yoon ku ci nekk sa ànd seen ànd dana dal xel. ci ndigalam moom président de la république dinañ fexe ba lépp loo xamante ni jumtukaay la wala fu ñu war a mën a dem wala fu ñu mën a wax lu ñuy gis ak wala lu ñuy dégg ñu fexe ba xibaar bi ak jumtukaay yu fexe ba fépp fu nit mën a nekk ci Sénégal mën cee jot pour nga mën a ñëw wax sa xalaat wax sa gis-gis ci li nga xam ni. moo di doxalinu yoon te ñuy xamal ni jumtukaay wi du pour rek euh, daje gi nga xam ne moom lañu amal mardi. Mm-hmm. day continuer di wéy ndax moom gis-gisam moo di am na yeneen initiative yoo xamante ni dina ko jël te bëgg na initiative yooyu yëpp dajaloo ci benn bërëb boo xamante ni yow citoyen bi soo ñëwee moo xam wàllu yoon la tey jii suba mën na nekk leneen suba mën na nekk ci beneen fànn soo ñëwee ci jumtukaay wi. nga mën fa dugg wax sa xalaat ñi nga xam ne ñoo war a nekk ci ginnaaw jot ko pour jébbal ko autorité yi ñoom tamit ñu def liggéey boobu